maa ngi lay ziar bu baax a baax. ñu ñëw ci tiis boo xamante ni dal na ci monde làmb génn àdduna Boy Bambara yan témoignage nga ñu ci mën a defal. waa ñi ñu mën a commencé de gannaaw bu ñu waxee inna lillahi wa inna ah ci borom bi la jóge woon ci la delluwaat àddina noonu la noonu la baaxoo ñun noonu lañ ko fekkoon noonu lañ koy bàyyi mooy ku fi jaarit da dem waaw lu fi bees dana màgget lu fi màgget lu fi màggetee masoon naa bees booy Bambara génn na àddina ñuy ñaan ci borom bi rek yàlla na ko yàlla yërëm. yàlla na dajeeg yërmande borom bi yàlla ko yàlla xare àjjana waaw parce que fi mu ne daa ñaan ko njëggal rek a fi dese waaw parce que grand bu bi yàlla woon man am na fu ma jaar moom ci affaire carrière lamb mais bariwul parce que bokkuñu woon écrit man Fass laa nekkoon moom Grand Dakar la nekkoon ñaar tali moo tax man écrit Fass laa nekkoon. waaye nag daanañu gisante di nuyoo di waxtaan di ka muy sama grand ma jox ko cër parce que moo ma ko ci sport bi bokkoon nañu te ko nekk équipe nationale tamit may entraîné ci ñoom foofu ak benn tubaab bu ñuy wax euh, Roses ak ku ñuy wax euh, grand Aziz Lam ak ñoom Amadou Kati Diop mii waaw ak ñoom Amboura Sarr mii ak ñoom John nag ak ñoom langa lang xale yooyu boobu ay boy lañu quoi booba daana fa ñëw ñuy entraîné nii mu nekk sunu grand ñu seq jàmm rek waaw parce que li ma daan wax rek sportif ñun ay adversaire la ñu mais du ñuy ennemi. waaw du ñuy ennemi tey moo waral gis nga tey sportif bu génnee àddina ñëppay ñëw kenn du des ko amoon soxla di ko bàyyi moo tax gis nga ni lu mu nekk na ko fonk lit lu mu nekk na ko fonk na mu koy fonk mooy day jox doomu aadama yi cër doomu aadama yi jox ko cër mais bu fekkee tegoo kenn fenn jàppoo kenn fenn bis dana ma sa yow nga soxla nit ñi doo gis moo tax sport kenn mënu koo fay seetal sportif bu fi génn àddina rek armée yi ni muy mel boo demee këram ni muy mel rajo yeeg journée yëpp koy dem te loolu wax dëgg yàlla xanaa ñàkkul ku ci am nekk koo xam ne kii euh, euh, yàlla dina nangu ñaanam loolu mooy àddina grand bu baax la woon euh, yàlla na ko yàlla yërëm xare ko àjjana sport tamit wax dëgg yàlla def na ci loo xam ne ñun defuñu ko man boog man sama bopp laa man de di mu def ci la mu defuma ko wax dëgg yàlla parce que booy bambara toj na mbapat toj na arène toj na gréco-romaine bi ak lutte libre bi yëpp fu ne voyagé na fa waaw ku mel noonu nag tey bu génnee àddina Sénégal yëpp ñàkk na ñàkk nañu tey monument bu rëy ci lamb waaw. jërëjëf Ibrahima ñu la koy jaale di ko jaale monde làmb. waaw yéen tamit maa ngi leen koy jaale parce que ñun ñëpp ñoo bokki ndab parce que yéen rajo sociaux yi ak ñun ñoo bokk ndab li parce que yéen jàlle suñuy wax waaye ñun tamit bu ngeen jëlu ci ñun bu ngeen jaaru ci ñun du ngeen am lu ngeen jàlle kon da ngeen jaar ci ñun di ñun tamit war nañoo mën a wax loo xam ne lu ñu mën a dégg mais nag damay éviter loo xam ne toujours nañ koy moytu mooy toog ci rajo studio di wax loo xam ne la ngay wax dara déggu ci ña koy dégg dañ lay jëppi day wax loo xam ne ay sos dong la parce que nee naa la ñi nu mag deewuñu ba jeex ñi ñu jur deewuñu ba jeex ñi ñu maaseel deewuñu ba jeex ñi nga xam nit ak tofoom lañu ay morom lañu koo mage benn at ñaareel ñetteel ay morom ngeen surtout carrière làmb kon kooku yow mënoo fee def xam ne lii ñooñu fekke wuñu loolu ngay tagg sa bopp di teg nga ne yokk nga yokku nga sa bopp yokkoo sa bopp da ngaa wàññi sa bopp parce que léeg-léeg ma dégg mbër ne daan naa nangam ak nangam te sa kaaru kaaraat ba loolu jaaduwul loolu jaaduwul tey jii grand saw mii di jur asa saw ak papa saw toog nii nga xam ne gën maa xam booy bambara dëkk ak moom ànd moom dégg nga li ma la fekke sama carrière am na ci loo xam ne su ma doon toog ci rajo yi di ko tagg sama bopp ni tey ji di ko ci wax moom xam na li ci dëgg ak ci dul dëgg su dee dëgg dina ma gën a naw mais su dul dëgg dina ah booy bi de bet na ma waaw parce que fekk na samay combat yu bari kon nag yàlla nañu yàlla damay dénku rek dénku sama bopp di dénku ñëpp rek jërëjëf yàlla nañu yàlla dooli sutura ah yu mel ni foog nga profité waxaale ci sa message mu jàll rek waaw surtout fu mel ni wasaare moom say day sama kër fu ma fi toogee foog ma wax sama soxla surtout ma toog Abdou Khadir ak Bachir foog ma moom daf may yëngal fu mu yëngal ma ba wax tax ma bëgg a saaraan waaw ah, mu ngoog yàlla nañ yàlla doolu sutura rek yàlla yàlla doolu sutura